asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu comme koy defee chaque samedi ci waxtu bi ñu leen di nuyu di leen ndokkeel ci weeru koor bi di ñaan yàlla mu nangu bépp jëf ju baax ju ñu def ci weer bi mbokk yi tamit ñu bañ a fàtte sunu mbokk El Ndaw dañ ko dolli dolli ñaan yàlla na ko yàlla taxaw yàlla na yàlla taxaw bépp jullit boo xamante ne yaa ngi ci ay tolof tolof yàlla na yàlla yombal mbiru jullit yi Ah, yéen mbokk yi comme niñ koy baaxee di def chaque samedi ñu dellu rek andi fi annoncement yi fi am su ko xamante ne rek am nga looy leerlu si sa mbiru diine nga woote ci phone number bi seven one eight five zero two nine five four three te bu ngeen wootee rek incha allah mën ngeen bàyyi message te tamit bu ngeen mënee préciser fan ngeen di wootee daal ba tey képp ku képp ku bëgg jàppale rajo bi mu nekk wàllu xalaat wala am am mën nga ko yónnee ci PO Box 463 New York New York 10026 bu ngeen bëggee nag déglu CD yi nga xamante ne waxtaan wi jot a passé mën ngeen woote suñu mbokk Mansour Gueye numéro am nekk 347 720 a mbokk yi ba léegi xam sa diine mu ngi leen di andil xam salon dot com mu nekk salon boo xamante ne mën ngeen fa dem déglu fa seeni i mbiru diine muy commencé nag six heures du matin ba sept heures si ngoon ah, di ngeen fa mën a fekk tafsiru quran ak yeneen waxtaan ci wàllu diine ba léegi xam salon dot com boobu bu ngeen fa demee mercredi à partir de dix neuf heures mooy heure New York di ngeen mën a jokkaloog ah, kii di docteur Mouhamed Ahmad Lo en live bu ngeen amee tey ay bu ngeen amee tamit ay question mën ngeen ko ko poser ci salon boobu loolu nag mi ngi am chaque mercredi à partir de dix neuf mi ngi nekk heure New York kon boog mbokk yi waxtaanu tey bi nag mi ngi nekk euh, fatawa te di ci leen koy defal nekk euh, docteur Mouhammad Ahmad Lo kon incha allah ñu bàyyi cheikh bi muy dugg ci waxtaan bi am yaa cheikhana fale tafaddal asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu salaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi irrahmani irrahim in alhamdulilahi nahmaduhu wa nastaciinuhu wa nastagfiruh wa nacuudu billahi min shururi anfusina wa min sayi'aati acmaalina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala haadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah waxdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته mboole mbokk yi ñuy déglu ak fuñ mën a nekk ñu ngi leen di nuyu di dellusiwaat ànd ak yéen ci seen jotaay bi xam sa diine mu di jotaayu fatawa di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal nu te defal leen tawfiq akum njéggal ci lépp loo xam ne ñoo ngi ciy jëm ci ay jëf li fi jot a des ci ay laaj yoo xam ne yi ñu war a tontu la incha allah ñu daal di ci jublu léegi léegi kon bi ci jëkk boroom dafay laaj mu ne saxaaba yi seenu faatu nan la doon demee ndax ci anam gu naturel lay doon wala dafa doonoon daal ak faatu goo xam ne bokkut te faatu yiñ xam alhamdulilah ñuy xamal mbokk mi ne saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain ay nit lañ ay doomi aadama lañ ay jullit lañ waaye nag jullit yu baax lañ jullit yu am tiraangay àdduna lañ ndax gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm ko topp ko loola fa la tiraangayam fii ci àdduna ñu bari ci ñoom itam wóor na ne àjjana lañ jëm ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seedeel na leen loolu ña nga xam ne ak teg si wax na àjjana lañ jëm ñu ñu rafet ci ñoom ci njort lool lañ waaye nag ahlu sunna wal jamaa foofu nag lañ cay yem ndax dañuy wax ne képp koo xam ne texte ñëw na ne ci àjjana la jëm kooka dañuy gëm ne kooka àjjana la jëm bu texte ñëwul nag wax ko ak lu jëfam baax baax da rafet ci moom njort kon ña texte ñëwul ci ñoom ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rafet nañ ci ñoom njort lool ëllëg waaye nag bu ma ne ay doomu aadama lañ li ma ci jublu mooy amul nag ci wàllu dund nag ak faatu ay jagle yoo xam ne dañ leen ko jagleel ndax yonent bi sallallahu yonent yi sax alayhim salaatu wasalaam bu dee ci kaadaru ak ndoom aadama ay doom aadama lañu woon yoo xam ne dañ doon feebar di sonn di xiif bu faatu jotee itam dañuy faatu nag kon wet googu moom bachar lañ fi ci doomu aadama lañu fi moo tax borom bi tabaraka wa taala dafa digal yonent bi ne ko qul innama ana basharum mislukum waxal ne man kat mbindeef laa mu mel ni yéen ci ak ndoom aadama maanaam yi gaar doomu aadama yi ci yaramam daf may gaar ci ay feebar waaye rek li li ma wutaleeg yéen mooy ab yonent laa dañ may wax yu te wax yu wuñ leen saxaaba yi nag ay saxaaba lañ dañ doon faatu ni nit ñi di faatoo lu bari ci ñoom faatu nañ fi sabilillah maanaam jeexaat nañ fi sabilillah ba faatu fekk leen ca am na ci ñoom ñoo xam ne dañoo feebar faatu kon daal faatu yi nga xam ne doomu aadama yi noonu lañuy ñuy faatoo saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu rek nag lañ doon faatoo euh, xaw ma laaj bi sax lan moo ko tax a jóg waaye noonu daal la tontu la demee incha allah ya ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na dund ak doomam ah su fekkee doon na dund ak doomam doom jooju kan la kan la waaw question bi niñ ko tëri nii dafa mel ne doom bi góor la jubloo laaj ak nan la dund googa doon demee digganteem ak doomam jooju su fekkee ne dañoo jublu day ne doom ju góor la comme ni mu rotte ci laaj bi muy fiis eh, doom ju góor ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amoon moo di Ibrahim Ibrahima daal la amoon si doom ju góor dund gëm dund ak moom it nag yàggul ndax Ibrahim ci atum juróom-ñetteel ci gàddaay gi ci la judd ab jëbeeram maanaam koo xam ne ab jaam la buñ ko mayoon mu jë mu jël ko soxna moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooka moo ko jur ñu di ko wax Maria Maria moom moo jur Ibrahim ci atum juróom-ñetteel ci gàddaay gi bi mu juddoo nag wax dëgg yàlla nag bi sallallahu alayhi wa sallam na ca lool Abu Rafi mi nga xam ne moo ko jëkk a jox xibaarub ne juddu na sax ne ko doom ju góor la itam euh, may na ko sax ab jaam maanaam terale ko loolu euh, ginnaaw laaj bi dafa jëm ci doomi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak jëflante yi mu doon jëflante ñoom te Ibrahim doon doomam joo xam ne mooy doomam ju góor ak li muy gàtt-gàtt fan téewul ay atte feeñ na ci ak dundam yoo xam ne ay ahkaam charia la yoo xam ne jaadu na ab jullit xam ko yooyu bokk na ci mooy ci xadisu anas bi mu juddoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu xëyee def ne wulida lil laylata waladun fa sammaytuhu bismi abi ibrahim mu ne bii ci guddi mu ne bii ci guddi am naa doom ji juddu <clears throat> tudde naa ko sama baay ibrahim ibrahim kon foofu xam nañ ne tudd doom ni mën a xaare ba juróom-ñaareelu fan ba kon mën naa judd ci guddi gi rek nga xëy wutal ko aw tur kon bis bi mu juddoo mën nañ ko cee wutal aw tur kon li nekk ci xel yi ñu jàpp ne am ak ngénte ñoo bokk euh, ab ate déedéet loolu doonut loo xam ne rek euh, obligatoire la mën nañoo daje maanaam bu ko neexee mu yeexee tur wa ba ci juróom-ñaareelu fan ba comme ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam defe woon ci xasan ak xuseyn waaye bu ko neexee bis ba mu juddoo mu wutal ko ci aw tur kon foofu yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu la jëfandikoo ci ibrahim danañ ci jële it ne tudde nit ki aw tur maanaam nit ñi tudde ko doom loolaatam lu baax la maanaam su fekkee kooka ku baax la ñu tuddee ko ko ndax dégg mu ne fa sammaytuhu bismi abi ibrahim maanaam tudde naa ko sama baay ibrahim mu yonent yàlla boobu kon moom la ko tudde bi mu noppee ci loola it daf koo jox soxna suñuy wax ummu sayf mu doon soxna soo xam ne boroom këram ëpp tëgg la bu nekkoon Madina mu jox ko ku ne ko nàmpal ko kon kooku moo doon nàmpal Ibrahim kon eh, danañ ci jële it ne joxe gone ñi nàmpal ko su fekkee ne yaayam dafa nekk ci liggéey xat loola itam lu jaadu la ndax Maria euh, radiallahu taala anha dafa doonoon ko am itte ci liggéey yonente bi sallallahu alayhi wa lu jëm ci këram ak lu jëm ci boppam ak na mu doon defal yonente bi alayhi salaatu wasalaam euh, ak ni yonente bi itte woon liggéey alayhi salaatu wasalaam taxoon na mu dox digganteem ak mën a féex ngir mën a nampal doom ca nam ko bëgg doom ca ko bëgg moo tax ñu joxe doom ji ñu nampal ko kon kooku beneen atteb sharia la Ibrahim <coughs> ñaari riwaaye moo am ci ak dundam nu mu toll woon ñi nee nañ fukki weer ak juróom-ñett la dund ñi nee nañ fukki weer ak juróom-benn la dund lu ci mën a xew daal kon fan woo moom guddut at ak dara rekk la dund moo xam at ak ñeenti weer la wala at ak genn wàll muy at ak juróom-benn weer bi mu faatoo it moom ibrahim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moo ko jullee gannaaw boo xamee ne ku ñuy wax al fadl ibnu abbas moo ko sang dañ koy denc Fadl ibnu Abbas moom yi ak Usaamatu bnu Zeyd ñoom ñaar ñoo dugg ca biir xabru ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog ca buntu xabru ba jox leen bim noppee it sotti na am ndox ci xabru ba samp fa dara mandarga muy wane ne e, fii la Ibrahima nekk ñu wax ne mooy njaal beenu xabru boo xam ne sotti nañ ca ndox muy xabru ibrahim boobu maanaam ci moom lañ njëkk a sottee ci ab xabru ndox lañ ci jublu mooy suuf su nooy sa bañ a naaw ba lañ sool ca biir di feeñ bi nga loolu xale bi nekk na ci sukuraat te faatoogul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mettitul na lool ndax jël na xale bi teg ko ci penkam maanaam teg ko ci kaw ab luppam daal di ne inna la num la nugni anka min allahi cheyan yow ibrahim yaa ibrahim inna la nugni anka min allahi cheyan yow ibrahim nun day mënunu dara nag ci loo xam ne yàllaa ko dogal maanaam daal lii nga nekk man mënuma ko dindi kon foofu yonente bi alayhi salaatu wasalaam nga fay jàngale tawxiid di xam ne ànd ak ne kii doomam la doomu yonent la sukuraatam ñëw na yonent ba mun koo téye ba leneen xew ci ñu ne ñu gis ne ñaari bëtam yi tàmbali di jëli di génne ay rangooñ moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye mu daal di waxaat foofu lu am solo mu ne tabkil ayn bët day mën naa jooy wa yaxzunu alqalb xol bi mën naa am njàqare wala naqulu maa yusxitu rab waaye ànd ak loolu làmmiñ wi moom luy naqari sunu borom tabaraka wa taala du ci génne kon yonente bi alayhi wasalaam mi ngi jàngale foofu ni nit ki am soppeem buy faatu wala mu faatu ba noppi day bëtam génne rangooñ dara nekku ca xol ba am naqar ak metit dara nekku ca waaye làmmiñ wa nag taalit ak wax ak fu nu jëm ak alku nanoog yu mel noonu loolu moom waxi jaahiliya kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na nun dun wax loo xam ne dafay naqaral dafay mettital dafay dafay naqari suñu borom tabaraka wa taala du dëppoo ak ngërëmul suñu borom kon kooku mooy ibrahim doomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne nag faatu na bañ denc ko ba noppi ca bis boobu meneen bi xewaat na mooy jant bi dafa muuru bi loolu amee nag nit ñi ñu ne ah jant bi de kon tey dañ koo jàpp li ñu tudde njàppum jant muy muuru gi ndax li ibrahima faatu na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yëg daa di jóg ñu woote ca pénc ma nit ña dajaloo mu ne inna alchamsa walqamara ayataani min ayati illah inna alchamsa walqamara ayataani min ayati illah mu ne leen jant bi ak weer wi ñaari kéemaani yàlla lañ laa yuxsafaani li mawti ahadin wala li xayaatihi su ñuy muuru maanaam su ko sunu borom tabaraka wa taala di muur dundug diw sàngam maanaam diw juddu na wala faatug diw sàngam diw faatu na yooyu yaar du tax jant bi di muuru kon daal nay dàq foofu pas-pas boo xam ne ma nga doon bëgg a juddu mooy ñi jàpp ne nit ku baax kat su faatoo bis booba jant ba day muuru maanaam day niis naajoo du tàng wala nit ku bon su faatoo bis ba day tàng déedéet yooyu moom amul benn jote ak nit ko faatu mën naa sedd guy te fekk jëmul fu baax mën naa tàng jër te fekk mu jëm fu baax ndax jotewuñ dara moo tax lam ca la ca am solo mu ne fa ida raaytum dalika fafzau ila wa wassalaa su ngeen gisee jant ba muuru na wala weer wa yéen la leen war foofu mooy la ngeen war a def muy jóg leen julli te bari lu ngeen di tuddal tudd yàlla kon kooku mooy ibrahim doomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy xeeti jëflante yi nga xam ne it jot naa romb ci ak dundam gu gàtt radiallahu taala anhu moom ibrahim moom doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na nag ay doom yu jigéen yoo xam ne juddu nañ ba màgg ba sëy ba am ay doom kooka zeynab bokk na ca fatuma mi ali ibn abi talib yoroon bokk na ca zeynab abul as moo ko xam ngeen ne am naa ak moom ay doom bokk na ci umaama mi nga xam ne moom la yonente bi alayhi salatu wasalaam daan buy julli mu ñëw laxasu ko bu gàddu ko di ko julliwaale bu sujjóot teg ko bu jógee fabaale ko kooka doomu zeynab doomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la Umu Kalsoom it kenn ku ne xam na ne ak Roqaya màgg nañ ba sëy Ousmane ibn Affan moo leen yoroon ñoom ñaar ñëpp dafa yor kenn ki mu faatu mu jox ko ka ca des kon am na ay doom yu màgg yoo xam ne yonente bi sallallahu alayhi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen yoroon luñ mën a jàpp daal mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay jikkoom jikkoy royukaay ci lépp laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana maanaam royukaay la royukaay la ci doon ngam doon ab yonent ak i jaam yàlla am ak pas-pasam ak lépp lu ci aju waaye reyukaay la ci doon gim doon boroom kër ci këram digganteem ak ay soxnaam nam doon jëflante ñoom lépp royukaay la royu la ci digganteem ak ay doomam ca nam doon jëflante ñoom kon yonent la borom bi tabaraka wa taala daf ko yebal ngir ñu ko ci lépp kon yooyu yëpp moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam royukaay la ci woon su fekkee ne mbokk mi loolu la jublu ci laaj bi ndax xam nan la doon jëflante ak doomam yooyu ñu xam ne mooy bàyyi ba ëpp yërmande ci eh, bàyyi Eh, ci lu féete seeni doom waaye mooy borom kër ba ëppoon tiraanga ëpp ak mbaax ak yërmande ci jigéen ñi nga xam ne ñoom la yoroon nekk noonu digganteem ak ci ànd ndoom muy ay saxaabaam ak képp koo xam ne amoon na ak yow ak jote xam nga ci moom loolu moo tax borom bi tabaraka wa taala ne ko wa innaka la ala xuluqin azim mooy sa jikko day yu màgg a màgg la wala jikko yu màgg fam yam yow yaa nekk ci seen kaw ñu jàll ci beneen bi ci tegu kii daf ne koo xam ne dafa fekke benn rakkaa ci julli timis nan lay jullee la ca des xam naa moom sax nan lay fayee la ca des la wax waaye loolu uh, wax la ju jub fay am na waaye it li am na ki nga xam ne dafa ñëw fekk imaam nekk ci rakkaam bu mujj mu fekkee rakkaa boobu fekkee rakkaa bi mooy bi imaam rukkoo fekkee na rukkoo ba wala mu fekkee njàng ma maanaam su fekkee rukkoo bi daal mu fekkee ne ko kon jot na booba rakkaa su imaam toogee di taaya day toog di taaya ànd ak moom ah su sëlmalee nag mu foofu am na ñaari riwaaya yu fi rot yoo xam ne yëpp wér waaye benn bi moo gën a dëgër ñaari riwaaya bi mooy riwaaya fay ak riwaaya mottali suñu waxoon ne day fay kon dañuy jàpp ne moom bi mu dikkee fekk imaam di julli ñetteelu rakka mu ñëw dugg ànd ak moom kon dañuy jàpp ne moom ñetteelu rakka bi lay julli moom itam ku julli ñetteelu rakka nag bañ jóg kon yow dese nga rakka bu jëkk ak bu ñaareel kooku foofu lay tudde qada foofu lay tudde fay su ko defee lam cay teg mooy julli rakka bu jëkk ba su boobaa day jàng fatiha ak saar daal di jóg du toog jàngaat fatiha ak saar door a taaye sëlmal su ko defee bu boobaa dañuy wax ne fay na rakkaam bu njëkk ak boobu ñaareel ba waaye nag riwaayab fay boobu ànd ak ne bu wér la riwaaya bi nga xam ne mooy riwaayatul itmaam muy mott li moo gën a wér mott li mooy lan mooy moom bi mu duggee ci julli rek nga jàpp ne donte imaam a nga ci ñetteelu rakkaam moom mi ngi ci rakkaam bu njëkk moom yow lii nga duggee ci julli gi loolaay sa rakkaa bu njëkk kon du imaam sulmale ma jóg fan laa jëm ci sama rakkaa ñaareelu laa jëm su ko defee dama koy jullee nañuy jullee ñaareelu rakkaa ci julli timis mooy damay jàng fatiha ak saar su ma toogee nag taaya ndax loolooy sama taaya ju jëkk su ko defee ma jóg dem ci sama ñetteelu rakkaa su ma ko jullee ba àggal daal di taaya daal di sëlmal kon loolu mooy eh, riwaayatul itmaam bi muy mott ligi julli nga sa rakka bu njëkk teg ca fa ñaari rakka muy ñaareel ba ak ñetteel ba riwaaya boobu mooy bi gën a wér moo nekk itam ci saxiixul buxaari ak saxiix muslim wallahu taala aalam ci def ne su fekkee ni imaam dafa julli ñaari rakka rek ci julli takkusaan daal di sëlmal gannaaw bi naka mu sëlmal ñi daal di koy sabbaal maanaam ñi yëgal ko ne ko yow kat juum nga maanaam teel ngaa mu ne ndax buy mottali julli ga ña ca gannaawam dañ koy mottali ànd ak moom wala nit ñi dañuy tàqali ko rek kenn ku ne julli sa julli maanaam mottali mottali la la dese woon alhamdulilah ñu koy xamal ne imaam su fekkee jamoj na sëlmal ci ñaareelu rakka ñi sàbbaal ko mu jóg di indiwaat yeneen ñaari rakka yi ca des nit ña dañuy ànd ak moom ca loola maanaam dañuy julli seen ñaari rakka ànd ak imaam ba mu sëlmal waaye duñ tàqalikoo moom kenn ku ne julli julli bopp wallahu mooy juróomeelu laaj bi daf ne ki nga xam ne daa bàyyi ab rakka te fekk da koo fàtte maanaam julli la daal fàtte ab rakka mu ne ban diir mooy boo xam ne mën na ko toog su ko fàttali ko rek day dem fay rakka boobu ki nga xam ne day julli fàtte ab rakka maanaam ah, julli gi ñeenti rakka la mu julli ko ñetti rakka daal di sëlmal bi mu sëlmalee day su fekkee ne soriwut maanaam mi ngi ci biir waxtu julli gi wala mu nekk ci biir jàkka ji wala dafa sëlmal rek ñu sëlmal rek ñu sàbbaal ko kooka la muy def mooy jóg indi rakkaa ba loola rek moo koy war booba boobaa ak sujjóot bi mu war a sujjóot ndax sëlmal gi mu def su fekkee nag loola dafa sëlmal maanaam moom doog moo doon julli wala bu fekkee ji bari woon nit it ñoom ñëpp jamot nañ fàtte nañ loola ñu dem ba mu yàgg ba ca ngoon sa wala ba ca ëllëg sa ñu door a fàttaliku ne ñoom ñetti rakkaa lañ julli woon loola moom doonatul lu kont maanaam duñ delluwaat ci jàkk ja naan dañu julli ab rakka wala ñu naan dañuy fay julli ga loola weesu na euh, jege gi nag ak sori gi li ñuy wax urf moo koy moo koy wone moo koy fixé maanaam mënunoo wut nun ab diir boo xam ne dan naan bu matee nangam da koy day ñëw julli rakka bu bu xasee mat nangam day fay julli ga wala day euh, duutu fay dara duutu ko war ala kulli xaal li ci borom xam-xam yi di nattale ñoom mooy julli gi li feeg mi ngi ci waxtoom li feeg mu ngi ci waxtoom su fekkee ne fàtte na rakka ba waaye nag soree na su boobaa mën naa fay julli maanaam sore googu nag moom it fixé ko maanaam daal xëy na noonu suñ ko doon nattale dan naan daal julli takkusaan la julli na ñetti rakka sëlmal génn dem nekk ci liggéeyam ba jant ba tàmbali xonq di bëgg a sox nga xam ne daal xëy na trente minutes moo tey jant sox wala lu ko jege. mu fàttaliku ne moom julleem nga kat matul woon foofu dañuy wax ne day dem julliwaat maanaam day fay julli ga balaa waxtu waa su fekkee lu gën a jege loolu nag nga xam ne dafa sëlmal rek bi mu daataan yàgg mu fàttali ko kon rakka ba mu fàtte woon rek lay dem indi ko waaye du kii su looloo lépp passé nag maanaam waxtu wu jege ba passé na waxtu julli ga ci boppam passé na maanaam takkusaan woon dem na ba jant ba sox ba mu julli timis ba noppi doo ko fàttaliku kooka mbir ma wàcc na ko ndax waxtu julli ga dem na te loolu kenn du ko digal mu di ko fay ndax tëyu ko woon wallahu taala alam kii def ne su fekkee ni jigéen ji dafa gis baaxam maanaam régal dem ba mu yàgg lim doon gis arrêté mu dem sangu tàmbali di jullee ko woor waaye mu dem ba mu yàgg deret ji dellusiwaat te fekk waxtoom jotagul nan lay def li ëpp ci jigéen ñi xam nañ seen baax maanaam seen waxtu wi nga xam ne ci la leen seen aada jooji di dikkee xam nañ ñaata fan lay doon ca weer wa ak bu ñëwee ñaata fan lay duré su fekkee ne jekki na ba mu yàgg waxtu we jot na mu dikk bi mu dikkee am ak moom diir bi mu daan am jeex mu dem sangu euh, tàmbali di julli am ay fan daal di tàmbali gisaat ko mu wóor ko ne deret ji mu gis dafa nuroo ak jam doon gis wuute kooku su boobaa itam dafay arrêté waat julli ga ak koor ga te xool nag bis ba mu njëkkoon a gisee eh, loolee doon génn ci moom ak fii mu ko gisaate diggante bi ndax mat na fukki fan ak juróom wala lépp ci biir fukki fan ak juróom yi maanaam ci dans quinze jours yi ci la nekk ci biir fukki fan yi juróom ci la nekk day jàpp ne kon régal booba rek moo am lu des kon mooy génnaat su ko defee mu arrêté julleem ak léppam saa boo xamee ne nag dem na ba kalkin xool gis ne bis ba dara ja jëkkoon a ñëw ak fii nu toll nii mat na quinze jours fukki fan juróom te teewul dara ja nag continuer di génn na xam ne loola nekkantul dereti régal su boobaa mooy li ñu tudde istihaaba maanaam dereti feebar la daa war a dem seeti ab fajkat mu faj ko den ndax deret jooju mën a arrêté waaye su boobaa doonatul deret régal ginnaaw doonatul deret régal nag su boobaa ya ko régal doon tere yooyu kenn terete ko su boobaa day war ci moom mu julli day koor day war ci moom muy woor julli gi nag day jàppal euh, julli gu nekk su fekkoon ne loola daa continuer moom ci moom ba am ay weer itam nii rek lay def maanaam weer wu dugg wu nekk moom xamoon na kañ la régalam daan ñëw su fekkee deret ji daa continuer di ñëw day bàyyi ba waxtu wi régalam daan ñëw euh, juróomi fan la daan doon ñeenti fan la daan doon moo xam ci weer wi ndax da daan doon quinze seize dix-sept dix-huit saa boo xamee ni ñeenti fan yooyu agsi na mu jàpp ne kon fi mu ne nii ci biir régal la nekk su boobaa mu arrêté arrêté julli ga ak koor ga bu ñeenti fan yam ko daan gis matee ak nam daan toll ca weer wa su loola jeexee mu daal di sangu mu daal di sangu jàpp ne kat régal ba jeex na deret feebar bi moo fa nekk daal di continué waat nekk ci julleem saa bu waxtu wa aké tey ci weer wa rek mu defaat nu daan def ba keroog borom bi tabaraka wa taala di dogal mu wér kon loolu mooy àtte bi nga xam ne noonu la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee ci ay xadis yoo xam ne yu bari la kii def ne daa yore benn kaamilu alquran boo xam ne bu tuuti la mu koy def ci biir mu koy def ci biir saagam ngir ngir man ci di di jàng alquran mu ne nag léeg-léeg day dugg ëb duus fekk mu ngi yore saagam boobu yi nga xam ne kaamilu alquran daa nga ci biir mu ne ndax dara war na ko ci loolu alhamdulilah ki nga xam ne dafa yor kaamilu alquran boo xam ne bu nekk ci biirub saag la moo xam tuuti na moo xam rëy na eh, jaaduwul muy dugg ak moom ci béréb boo xam ne bu sellut la saa boo xamee ne mu ngi dugg ci ab duus fekk lii mu yor bagaasum bi alxuraan a ngi ci biir na seet fu mu ko teg ba génn door koo jël lu dul nag su fekkee ne ngànt da am mooy nekk na foo xam ne bagaasam bi fu mu ko teg bu génnee mën na ko faa bañ a fekk maanaam mënees na koo fab sàcc ko te it gisul fenn foo xam ne fu ko dénkaa dénkaane la lu mel noonu nag su amee su boobaa ngant moo gaar ginnaaw téere ba ma nga ci téere bi alxuraan ba ma nga ci biir jaafiraam xëy na maanaam am na benn couverture boo xam ne ca la nekk ñu tëj ko ca ba pare mu duggaat ci biir saag ba mën nañoo jàpp ne xëy na kon loola su àndeek ngant li ko gaar bu munta bañ a dugg ak moom foofa su ko fa dugalee eh, bàkkaar man na caa bañ a am insha allah waaye nag mu jéem a góorgóorlu daal ba am fu mu ko dénkaane loola moom moo doon li gën ci mbir yi loolu moo tax lenn ci eh, jàkke yi boo demee Màkka sax am na fa eh, ubbi ay place ay gise yoo xam ne spécial la pour dencal nit ñi seeni i bagage boo fa dikkee dangay fekk guichet bi benn coffre fort bu ndaw la bu yor caabeem boo ñëwee da ngay dugal sa bagage ci biir daal di koy tëj def sa tëj def sa caabi ci sa poos dem faj sa aajo bu dee da ngay jàpp bu dee da ngay def la nga def boo dikkee daal di tijjiwaat jël sa bagage bàyyi fa noonu ña koy garde dañu faa toog noonu rek ñoom di garde ku denc sa bagage ñu denc ko loolu dafay mel ne béréb yu mel noonu da koy aajowoo ndax béréb la boo xam ne mënoo teg sa bagage di dem te yoru loxoy kese Eh, yor sa loxo kese bàyyi ko fa amaana boo dikkee doo ko fekk ndax la fay ne ci mbooloo kenn xamul nu mu toll te soo ko ngàbbee dugg ak moom ci biir itam mën naa doon bagage boo xam ne léeg-léeg bu diis lay doon wala mu doon bagage boo xam ne lu sell ngi ci biir comme ni ko mbokk mi laaje ni alxuraan wala yu mel noonu kon yu mel noonu jaadu na muy am ci béréb yoo xam ne yu mel noonu la wallahu taala alam kii dane kii dane moom dafa am benn xaritam boo xam ne daal ci ñiy góorgóorlu ci sunna ci la bokk nee na ñoom ñaar ñi ngi dund ci bitim réew muy laaj ne ndax bu fekkee moom daa tukki ñëw ci réew mi dana dagan mu jóg dem ziyaara ji waa kër xaritam boobu bi mu nekkal bitim réew maanaam jabaram ak ci doomam mu ne ndax dafa dégg leen ci mbokk yi ñuy taral lool ci mbir moomu muy laajaale it yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nan la daan jëflanteeg saxaaba yi ci mbir yu mel noonu alhamdulilah ñu koy xamal ne nit ki liy cosaan ci digganteem ak waa këram ay jigéenam yoo xam ne dañoo nekk ci seen biir kër lay cosaan mooy ay góor yoo xam ne góor yi jàmbur la duñu fa dugg lu dul ci ndigalul boroom kër gi moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo bokk na ci yim tudd ne warugaru jigéen la mooy mu bañ a dugal ab jàmbur ci kër yi nga xam ne war na ko digganteem ak jëkkëram nga xam ne dafa war a sàmmoonte ak moom lu tax mooy seytaane dafa bari doole te fenn ku nekk la mën a jaar euh, kon mbokk moomu ci boppam moom mii ñëw di xalaata ziyaare si kër googu moom moo war a wattandikul boppam lépp loo xam ne xeetu lënte nga ca su fekkee ne daal am na ndigal lu jóge ci borom kër ga wala ab yóbbante boo xam ne da ko war a yut waa këram ñoo ñii na fexe ba loola su koy def na doon loo xam ne ay nit dañ faa nekk yoo xam ne dañ koo fekke maanaam bu mu fa dugg di wéet ak jigéen wala muy def loo xam ne lu jaadu wut la su fekkee ne kër ga soxna sa képp na nga fa nekk ak i doomam bu jógee di dem kon na ji jiima def lépp loo xam ne xeetu wattandiku la ak jàpp ci sabab yoo xam ne dana ko génne tuuma yooyu bokk na ci moom teel koo yëgal ne ma ngay ñëw foofa ndax mu man koo waajal ba du ko fekk ci situation ci wàllu col woo xam ne dana gis ci moom lu mu warta jos bokk na ci yooyoot mu ànd ak keneen wala ñeneen ñoo xam ne danañ ko gunge ba su ñëwee du toog ak ndaw soosi toogaay boo xam ne toogaay wéet lay doon su dikkee def itti yi ko tax a jóg daal di dellu su fekkee nag yooyu yëpp amu ca na jàpp njaamuram bañ koo seeti loolu mooy li jaadu ndax nit ki jullit bi du ubbil boppam ay bunt yoo xam ne bunti tuuma la wala bunti na te nag su fekkee ne ñu leen lii xew mooy ay fitna mi ngi am ci bunt boobu donte sax ci diggante ay mbokk la donte sax ci mbokki sunna la ay mbir ñi ngi koy yëg yuy xew yoo xam ne léeg-léeg mu am ci ay diggante gaa bariwut waaye nag léeg-léeg mbir xew yoo xam ne si musiba la yu mat a wattandiku yoo xam ne su fekkoon ne nit ki tënku ne ci charia nam ko ko sante eh, kon lu mel noonu mën naa bañ a waaye nag eh, xët charte bi nga xam ne moom la sharia teg barrage bi nga xam ne moom la teg diggante góor ak jigéen xëtt ko mooy dem ba indi fitna loolu moo xam yëg nañ ko wala yëguñu ko waaye lu mel noonu léeg-léeg njuumte lu rëy am ci loo xam ne dana àgg foo xam ne diggante xarit ya seenu xaritoo dana ci yàqoo faw eh, nit ka amoon diine bañ wóolu ko it kóolu tegam amoon dana ci daal di yàqu kon yu mel noonu lu mat wattandiku la léegi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moo doon fekk ab daram bay wattandiku yu mel noonu kon ku mel noonu taxul bu fekkee dafa laaj yonente bi nu mu doon jëflanteeg saxaaba yi mooy yu mel noonu moom wattandiku rek wattandiku kenn gisut fenn foo xam ne dafa doon waaxu moom di dugg ci ay kër yoo xam ne seen borom kër nekku fa wala keneen di ñëw di waaxu dugg këram ci lu dul loolu bal soxnaam si nga xam ne sax moom la nekkaloon ca jàkka ja mu yët ko mu yët ñam fekk ma mu génn di ko gunge sax bi ko saxaaba yi seenee wàññiku ci guddi gi daf leen a ba bañ ñëw mu ne leen kii kat safiya la ndax ñu xam ne kooku soxnaam la waaye doonul jigéen joo xam ne ñu ñëw di ko seet si la kon ay jigéen yi jóg di seeti ay góor ak i góor yi jóg di seeti ay jigéen ci ay gërëb yoo xam ne yu lënt la kooku sharia nanguwu ko lu ma a wattandiku la ci diggante mbokk yi rawati ci dafay laaj mu ne lan mooy at teb sharia ci expression bii mooy yow laa yaakaar wala diw laa yaakaar àdduna ak àllaaxira loolu moom euh, lu xaraam la daganut su ñuy yaakaar àdduna ak àllaaxira ku dul yàlla amut kon nit ki fu mu génnee lu mel noonu rek fu ne yaakaar joo xam ne ci àdduna ak dafa jëm ci kenn rek kooka sunu borom tabaraka wa taala la war a doon yaakaar ja ci borom la lay jëm waaye di jëm ci doomu aadama fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saalihan kon raja muy yaakaar jël say mbir wékk ko ci koo xam ne da ngaa jàpp ne day faj say mbir adduna ak àllaaxira kooku ci xasaa'isi sunu borom tabaraka wa taala la ay particularité la yoo xam ne sunu borom tabaraka wa taala képp moo ko jagoo waaye doomu aadama amut ci loolu ak cër dari nag ci mbiri àdduna yi moom léeg-léeg nit mën na gisee yaakaar nit mën ngaa ñëw ci nit ngir aajo joo xam ne joo soxla la nga ne ko tey kat damaa xëy ñëw ci yow di la sama aajo ji gannaaw yàlla yow laa ci yaakaar loolu mënees na ko waxtu su boobaa du doon waaye nag jël say mbiri àdduna ak àllaaxira nag jooyal ko doomu aadama ni moom laa yaakaar àdduna ak àllaaxira kooku musiba la moo xam ne mën naa tàbbal nit ki sax ci bokkaale boo xam ne bokkaale gu mag la euh, borom xam-xam yi koy tudd ab atteem dañoo wax ne ci euh, euh, shirkul alfaas ci la bokk maanaam bokkaale la ci ay baat maanaam baat bi ci boppam ki ko génne ci gémmiñam génne na baatu bokkaale ci gémmiñam su fekkee lu àgg ci xolam la nag moo gëm ne kii moo yor ay mbiram àdduna ak alaxira ba mu yaakaar ko kon su boobaa dugg na ci bokkaale gu mag dafa war a beesalaat diineem daa war a wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah tuub wax ju noonu te duggaat ci lislaam beesalaat diineem wallahu taala alam laaj bi sorewut ak bële weesu woon ndax kii daf nee na xamante naa moom bu yàgg waaye nee na koo kii mu xamanteel daal présenté wu ko jabaram muy laajte nag atteb loolu ndax nee na léeg-léeg mën naa dajeeg jabari waayam jooji ci aw yoon fekk mu am fa problème su fekkee kuñ ko présenté la mu xam ko mu man koo jàppale ak yu mel noonu alhamdulilah ki nga xam ne dafa yor soxnaam présenté wu la ko kooka euh, wërta doon sax bunt boo xam ne dañuy laaj lu tax defu ko ndax na muy doxe noonu mooy cosaan maanaam da ko daf laa aajowoo bu soxnaam moo tax présenté wu dafa doxe rek li nga xam ne noon la ko sharia sant ndax ubbiwul bunt boo xam ne na mën na caa jaare loola la ci jublu loola moom noonu la dara nekku ci yow mbir la moo xam ne waru koo jàmbat waroo jàpp ne kii dalaa jàppewut ab xarit waaye mbir ma noonu la war a tudd noonu la war a tëdde ndax présentation yeeg dugg yeeg génn nag damaa jóg seeti koog daf maa seet si woon yooyu mooy indi fitna yi te fitna buntam dañ koy sakk saddu zara'i muy bépp bunt boo xam ne xam nañ ne fitna mën na faa jaare bunt boobu dañ ko war a sakk te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bàyyiwuma ak sama góori xeet wii fitna joo xam ne moo gën a rëy ci ñoom fitnay jigéen kon fitna ji dox diggante góor ak jigéen fitna la joo xam ne ku ca bañ a tàbbi da ngay sakk bunt booba kon kala parasanté wut jabaram alhamdulilah loola lu baax la yow miñ ko parasanté wut waroo koo jàmbat waroo ko jàppee ne sax kii daf ma jàppewul xarit wala yu mel noonu yooyu moom ay aada rek la yoo xam ne dañ nu ko yut waaye doonut loo xam ne sun diine ci boppam moonu ko jàng am naa li mu wax nag ne mën na maa dajeeg moom ci mbedd mu am problème doonoo koo xam ne danga ngaa doon koo xam ne dañu laa sax ne bu problème amee ci mbedd mi yow yaa koy réglé mbedd mi am na nit ñoo xam ne dañ leen a wut ñoo xam ne nit yi yoon lañ yoo xam ne dañoo taxaw di garder sécurité di defar yoon wi di ku am problème ñi ñëw jàppale la dimbali la kon lu mel noonu loola du sa wàll ba ngay wax ne mën naa koo fekk ci aw yoon mu am problème te pour ma mën ko jàppale loolu rek nekkul benn cause boo xam ne day tax ñu ne ah kii kat kon nit ñi dañoo war a présenté góor ñi seen i jabar ndax suñ amee problème ñu mën leen a mbir yi noonu kon daal liñ bëgg wax foofu mooy lépp loo xam ne ragal nañ ne bunt la bu mën a indi fitna nañ ko nañ ko sakk kooku loolu loolu mu def incha allahu dara nekku ci wallahu taala alam kii def ne moom tardé na jullig ajjuma ñeenti yoon li ko waral it mooy nee na ci biir am njàngam waxtu woowu daa fekk mu nekk ci li ñuy tudde travaux pratiques travaux pratiques mbir la yoo xam ne xam naa bu ca nekkee mënut a génn jëm fen mu ne loolu moo tax mu am ñeenti ajuma yoo xam ne julliwu ko juma te it dégg na tëkku yi nga xam ne moo rot ci képp koo xam ne wuute nga ñetti ajjuma alhamdulilah euh, borom bi tabaraka wa taala daf ne fattaqullaha mastataatum ragal leen yàlla kem seen kàttan wax ne laa yukallifu allahu nafsan illa wasaaha borom bi du teg bakkan loo xam ne lu mënut la kon yow jullit bi nga xam ne yaa ngi tënku ci mbir ngir moom yi moo xam lu mu mën a doon moo xam ci liggéey la moo xam ci njàng la moo xam nu mën a demee su waxtu julli jumaa jotee xamal ne waxtu wa jot na te waajib la ci bépp jullit maanaam lu war bépp jullit la mu dem julli soo xoolee sa situation nag mu wóor la ne yow mii def nga sa kem di kàttan waaye lii nga nekk nii ngànt la munoo dem nga ñàkk caa dem kon kooku ngant lu sharia di nangu lay doon su fekkee ne la nga nekk doonul ak mooy yàlla moo tax boroom xam-xam yi bind ci téere yi di nett li ngànti ajjuma di ko tudd ya ñuy tudd day doon yoo xam ne mooy yë gënoon a siiw ci seen jamono kon bu jamono day dox mën nañoo dem ba yeneen i judduwaat yu bokkul woon ak yooya. bokk na ci ngànt yiñ doon tudd ñu ne nit ki bu fekkee ne dafa dafay garder alalam. yoo xam ne su génnee dem julli ji bu dikkee day fekk ñu sàcc ko. maanaam mu ngi ci bitigam daal waaye bu julli jee bu ñëwee day fekk ñu toj bitig bi sañu te ubbi bitig bi di jaay waaye sañ naa tëju nag ci biir bitigam di ko garde jullee foofa wala ci këram muy garde njabootam euh, te mi ngi ci béréb bu amul sécurité bu génnee danañ dal ci kaw këram amaana faagaagal ak njabootam def fa ay njaaxum su boobaa sañ naa toog ci këram jullee fa jullik tisbaar bañ a julli ji kooku ci ngante yi ci la bokk am na sax ci téere fiq yi ñu dem ba ne bokk na ci ngante yi koo xam ne dafa yoreel nit bor te mënugu koo fay ba noppi jàpp ne bu julli jee ci jumaa ja dana dajeek moom te su dajeeg moom histoire mën na caa juddoo maanaam mën na caa xeex ak moom ñu ne kon kooku mën a bañ a julli wala yoon wi mu nar jaar dem julli ji amul sécurité ab guerre am na yu mel noonu am na ba génne di julli ji bala ngaa àgg sa bakkan mën nañ ko faat wala am na ñu la tëkk ñoo xam ne dañ suñ daje yow dañ lay faat kooku def nañ ko ngànt loo xam ne kon daal lañ bëgg a wax foofu mooy nit règle générale bi mooy na xool digganteem ak yàlla ndax moom mi sàggan moo tax mu bañ a julli ji ajjuma wala dafa amul pexe su fekkee amul pexe te lam nekk doonul ak ma yàlla nag kon kooka ngant la moo tax xadis yooyu yi nga xam ne day tëkku ku bañ julli ji ajjuma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boole na ca ne ci lu dul ngànt ci lu dul ngànt mooy képp koo xam ne won na gannaaw maanaam fàddu na bañ a julli ji ajjuma ñetti ajjuma yu tegaloo te amul ngànt noonu la ko yonente bi alayhi salatu wasalaam waxe nee na borom bi tabaraka wa taala ab xolam maanaam xol ba dafay yàqu duutu euh, xam lu baax wala duutu nangu lu baax wala duutu ca sawar xol buñ tàmpee dafa am ay jeexeet yu bare bare bari yoo xam ne yàlla na ci yàlla musal kum dal mën na feeñ ci ay facteurs yu bare bari mën naa tax mu tàyyeel ci jaamu yàlla wala duutu ko bëgg sax mën naa tax lu jëm ci jàng diine ak déglu ko ak jéem koo xam daf cay tàyyeel wala duutu ko bëgg mën na ko yàqal yu bare bari daal ci doxinam ci biir diine am ci biir diine mën naa dem ba sax dëgg duutu ko xam suñ koy expliquer loo xam ne sunna la ak loo xam ne biddaa la xol ba duutu xam ne lii ak lii kon yàlla na yàlla mosal ci xol boo xam ne dañ koo tamponné eh, ko eh, ak jëf boo xam ne dana tax loolu di am kon dal mbokk mi su fekkee ne gànt la am loo xam ne moo ko tey julli ji kooku moom insha allahu du yàq dara ci mbiram su fekkee travaux pratique boobu muy def am njàngam nag da caa aji yoo xam ne su déwul am njàngam wala année bi lim doon jàng lépp mën na yàqu kooku moom insha allah ñoo ngi am yaakaar ci mu waaye nag ànd rek loolu lépp jaadu na ci ñi nga xam ne ñoo yore bérébu jàngukaay yi moo xam ci wàllu gouvernement la wala dafa jëm ci wàllu ay eh, association wala mu jëm ci eh, ay écoles yoo xam ne privé la wala yu mel noonu suñ nekkee ci réew moo xam ne réewum jullit la moo tax may wax ñu xam ne ajjuma daa war a doon programme jullit waxtu woowu su jotee lañ doon def yépp dañ ko war a bàyyi dem julli ji dañoo war a dugal ci programme biir école bi ne bu ajjuma jotee dañoo war a dem julli ji ginaaw fexe nañ ba dimanche ak samedi nga xam ne ñañ koy feetal ñooy ñi fi gën a néew dimanche ña ko moom mooy mooy chrétiens yi ñooy ñi néew bu fekkee ne fii ci Sénégal la euh, bu dee yi nga xam ne samedi mooy seen bis daanaka kenn xamul ñaata lañ ci réew mi matuñu sax euh, un pour cent ko fi lu néew a néew a néew la ba pare samedi yi ñu def ci ak yombal dimanche bi ñu def ci ak yombal waaye waaye jullit yi nga xam ne ñoom ñooy ñi gën a bari te ajjuma mooy seen bis boo xam ne waxtoo ngi ci woo xam ne su jotee dañu war a bàyyi liñ doon def julli ci ajjuma waxtu woowu li jaadu mooy dañ ko war a ubbi dañ ko war a yombal su fekkee ne bisu ajjuma ji ci boppam euh, mënuñu ko bañ liggéey itam ndax loolu itam mën naa bañ a dëppoog charia waaye ñi ubbi waxtu bi nga xam ne mooy waxtu julli ji waxtu moo xam école la moo xam leneen nit ña dem julli ji doonte dañuy julli ba noppi dellusiwaat continuer seen liggéey kon loolu Euh, mbokk yi bis nekk tey mooy li fi jotoon a rot ci ay question euh, noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di ko ñaan mu dolli ñu tawfiq te saxal mbokk yi ci euh, liggéey bi ba mu mën a gën a jëm kanam bu baax a baax a baax di sant mboolem ñu fi teew itam ci déglu bu rafet bi di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ñu ngi ñaanal cheikh bi yàlla subhanahu wa taala yokk xam-xamam barkeel ko macha allah question yi am na solo bu baax ñu ñaan yàlla gën a ko dëgëral gën a yokk xam-xamam ni tamit yàlla subhanahu wa taala gën ñu maanaam euh, jàppandal bi mën a jëriñu ci li nga xam ne ñu ngi ko fi wax léegi bu fekkee amul ak min bi ñu bu fekkee amul question urgente kon dinañ man a bàyyi cheikh bi mu noppalu incha allah ba àllarba bu fekkee nag am ne question urgente léegi ñu yokkal cheikh bi mu tontu ko bala moo dem incha allah taala waaw léegi euh, yaa cheikh kii dafa doon laaj mu ni est-ce que perte ñi ndax ba xam loolu dafay toj jàpp ba xam jigéen bu bu gisee perte blanche jàppam dafay toj wala du alhamdulilah euh, lépp loo xam ne lu génne ci doom aadama la jaar ci ak suufam moo xam góor la wala jigéen ñoo xam ne loola luy toj njàpp la ak lu mu mën a doon kon ki nga xam ne dafa am perte blanche nga xam ne day génn génn boo xam ne bu continuer la gaaj cangaay moom waru ci waaye saa boo xamee ne waxtu julli jot na war naa defar boppam ba set war naa jàpp door a julli moo ki nga xam ne dafa am li ñuy tudde salasul bawl ñoo bokk mooy ki mënta téyeeti am sawam nga xam ne fu mu toll fu ne am na luy toq saa boo xamee ne waxtu julli jot na bu nekk war naa dem defar boppam ba mu set jàpp julli kon julli gu jot gu nekk dana ko jàppal am jàpp su jàppee ba dugg ci biir julli ga nag lay génnati moom considéré tuñ ko dara maanaam du ko wàññi dara teewul mën naa continuer def julleem kon daal ñu xam ne règle générale bi moom mooy ya borom xam-xam ya di juyoo moom lu génne ci suufu doomu aadama bokkul bokku ci suufu doomu aadama bu ñu ko waxee muy ñaari bën bënam yi mu am ci suuf lépp lu ci génne rek xamal ne loola dafay toj njàpp yi ñuy juyoo kay mooy yeneen yi gaar nga xam ne mooy ñi naan laal na ci ndax nelaw naag nelawut ak yooyu mooy am ay juyoo borom xam-xam yi ak de détail waaye li génne ci suuf moom foofu amul juyoo moom ne amul juyoo moom ne dafay yàq njàpp wallahu taala waaw barakalaa bu nit jaaree ci kanamam est-ce que day yàq julleem moom kii julli bu nit jaaree ci kanamam est-ce que dafay yàq julleem alhamdulilah ki nga xam ne dafay julli dafa am lu ko sharia sant moom mi nga xam ne dafay romb nit ket dafa am lu ko sharia sant kii julli dañ ko sant ne na julli jëm ci saatir yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne su kenn ci yéen di julli na teg ci kanamam loo xam ne lu mu gàtt gàtt dana toll ne li ñuy tudde mu axiratu raxl moom loolu ñi xam genre teg yi nga xam ne moom la ñuy teg ci kaw gëléem nit ka war ci am na lu muy wéeru li muy wéeru noonu boo ko seetee dafay tolloog chibra maanaam boo tàllalee sa loxo diggante baaraam bu gàtt bu mag bi mooy baaraamu dëy bi ak catul baaraam bu gudd bi mooy baaraamu digg bi eh, day tol noonu lu mu gàtt gàtt su ko defee su tegee ci kanamam kon lu fés loo xam ne ku fay jaar dana xam ne lii ci kanam kii julli la nekk kooka def na li ko war su ko defee nag dootu bàyyi kenn muy jaar ci digganteem ak saatir boobu mu suturaal loolu nag mën naa doon poto bu nekk ci biir jàkka ji mën naa doon ab miir mën naa doon sax nit koo xam ne dafa toog te mu wóor la ne du jóg ba keru muy ba keru ngay sëlmal loolu lépp mën na koo doon ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli na jubli jubli ci gëléem boo xam ne dafa yës kon nag mooy wane ne mënees naa julli jublu ci nit su fekkee xam nga ne du jóg kon loolu mooy kiñ sant kii julli ki nga xam ne day romb nag liñ ko sant mooy moom itam képp koo xam ne mi ngi julli jublu sutura mooy na jaar ca gannaaw sutura ba waaye bu mu jaar digganteem ak suturaam mu ne foofu su fekkoon ne nit ki xam na bàkkaar bi nar a tege ci kawam fekk mi ngi fekk ki julli mu jaar ci digganteem ak suturaam su xamoon bàkkaar boobu dana ko jalal mu taxaw ñeen fukk ñeen fukki yooyu ñii nee na ñeen fukki at ñii ne ñeen fukki fan waaye lu mu ca mën a doon rek lu rëy la ndax bu fekkee jaral na la quarante jours nga taxaw ko di xaar kon mooy wane ne bàkkaar boobu woyeful kon loolu jaar ci kanam kuy julli fekk mi ngi jël saatir loolu lu mat a wattandiku la léeg-léeg day am njaaxum yoo xam ne ñii julli ci boppam ñoo koy def mooy julli goo xam ne yow ma mënoon ngaa julli jëm ci poto wala nga julli jëm ci saatir nga bàyyi ko dem julli rek direct noonu nga xam fu waay jaar jaar ci sa kanam su boobaa kooka buñ jaaree ci kanamam it mooy bakkaaru léeg-léeg nga gis koo xam ne sax dañëw ba ci bunt bunt jàkka nga xam ne ku dugg moom faaw ci bunt bi ngay jaar mu julli jublu bunt bi nga xam ne kii dugg moom ci kanam ay loxoom rek la mën a jaar su ko deful du dugg ci jàkka ji su boobaa ñi nga xam ne bàkkaar boobu kay julli la war waaye waru ki nga xam ne mooy romb mu des nag julli gi kañ lay yàqu ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na julli dana yàqu ci su fekkee ne xaj bu ñuul moo jaar ci kanam kii julli ndax nee na kooku seytaane la su jaaree ci kanamam kooku dafay dagg julli gi wala jigéen yoo xam ne àgg na ci at yoo xam ne mat na mu kal maanaam gis na régal jigéen ji di gis régal su jaaree ci kanam nit kooku dafay yàq julleem kon loolu ñu xam ne loolu ñu mat ko bàyyi xel saa boo xam ne lu mel noonu am na kon kooku dafa war a commencé waat julleem wallahu taala alam jigéen ji nga xam ne dafa gis baaxam maanaam rek waaye mu am soxla bëgg a def nag salaatul istixaara mu ne moom nan lay def alhamdulilah xam nga ne ki nga xam ne dafa gis baaxam te ne ngeen kooku daganul ci moom muy julli benn façon julli waaye nag dagan na ci moom mu ñaan kon su boobaa li muy man mooy tàllal ay loxo boroomam ñaan ko li nga xam ne moom la ko waroon a ñaan bi mu defee salaatul istixaara bi jaamu yàlla gi nga xam ne defu ko ngir ngaan kooku borom bi tabaraka wa taala du ko ko jàpp julli gi ñu doon jiital door a def salaatul istixaara li muy firi ci lislaam mooy kooku tawassul bil amali saalih mooy def jëf ju baax def sa tawassul maanaam jaare ca ngir boo ñaanee sa borom nangu sa ñaan ginnaaw ju baax jooju nga xam ne mooy julli nag munu munu la jot kon loola wàcc na la ca des kon mooy ñaan gi kon sañ naa toog ci jotaay daal di eh, ñaan sunu borom tabaraka wa taala ci duaa wal istixaara muy ñaanuk istixaara gi nga xam ne moom lañ doon ñaan eh, su ko defee eh, la ca des boroom bi tabaraka wa taala jéggal na ko kii dafay laaj nan la ñuy miraase yaay joo xam ne dafa faatu bàyyi fa doom ji góor ak doom ji jigéen alhamdulilah masala miraas day moom dafa doon masala yoo xam ne dafa laaj ay laaj yu bari bari door koo toon ndax laaj noonu rek nga daal di tontu moom day daal di doon loo xam ne yeneen mbir mën na caa làqu ndax amaana ñii nga xam ne ñoom ñoo war a doon kooku mën naa am ay mbir yu tee doon gi am mën naa tax itam ay mbir yoo xam ne mën naa jur benn gàllankoor ci xeet yooyu boo xam ne day tax doon nante bañ a am seen diggante ndax am na mbir yoo xam ne bu xewee day ak baay wala yaay doom a am na ñeneen ñu mu bàyyi ànd ak loolu lépp loo xam ne jugement moo koy lijjanti ci la ko boole waaye boolewu ko ci li nga xam ne fataawa moo koy na ko tontu ci ni laaj bi rote rek moo di nit ki nga xam ne yàlla dogal na mu faatu di yaay bàyyi fa doom joo xam ne jenn doom ju góor la ak jenn doom ju jigéen nañu séddale alal ji su fekkee noonu rek la te amul keneen ku leen di ku koy doon moo di dañ koy def ñetti xaaj ñaari xaaj ya doom ju góor bi moo ko moom benn xaaj ba doom ji jigéen ji moo ko moom li ma la mënoon mën a waxee daal bu fekkoon ne trois millions ñaari millions yëpp ku góor kaa koy moom benn ba ku jigéen rek moo koy loolu nag maandug lislaam la dugg boo déggee ñu góor ñaar jigéen benn loolu dafa dugg ci maandu te gi lislaam di atte ndax lislaam gi nga maandoom faawu yim atte yëpp da leen di boole waaye doo coqati benn rek daal di sukkandiku ne jigéen ji dañ ko tooñ ndax borom bi tabaraka wa taala mi nga xam ne moo waral loolu ne góor ko jox ñaar dafa am ne bu ko war la xam moo war a jëli yeneen i jigéen yeneen i jigéen andi leen fi yor leen su amee ndey ak bàyyi ci lor mu boole leen ak ñoo ñuy yor kon li nga xam ne projet bu mel noonu moo koy séentu ci société bi laaj nañu dimbali ko jox ko fond boo xam ne mën na caa départ ndax mu mën a samp kër mën a yor ay soxna mën a yor baayam mën a yor ndeyam ak yu mel noonu jigéen yi nga xam ne moom lañ jox benn boobu nag nga xam ne buñ ko séddale ñetti xaaj dañ ko jox benn xaaj ba kooku projet am mooy dafa war a dem sëyi ci kër bu demee ànd ak alalam jooju ñu ko jox kenn sañu caa jël benn dërëm moo ko moom di ko defare boppam di ci ak soxlay boppam waaye fa muy dëkk ak la muy sol ak la muy lekk yeneenu góor la yàlla sanne ko kookal kii lum soxla ci ak dundam yow yaa ko koy jox kon loolu moo tax su fekkee lislaam kii jox na ko lu ëpp mu jox ko loo xam ne lu yées la kooku dañoo xool kenn ku nekk la lay eh, séentu ci kanam ànd ak ne bu dee dañoo globalisé xool mboolem masala yi nekk miraas mboolem masala yi nga xam ne ñoo nekk ci miraas situation yi am ci biir miraasum lislaam ñi gis jigéen ëppale fa góor eh, moo ëpp eh, masala yi nga xam ne góor góor moo fay ëppale kon loolu laaj la boo xam ne moom daal xaw ma xam naa bu xaw a doy waar la moom itam borom daf ne ndax dagan jigéen mu sol daal yoo xam ne daal moom la ñuy wax sandal daal di sandal mu ne daal genre carax la mu ne daal euh, la ci jublu yoo xam ne yu kawe ba ëpp la yoo xam ne lu mu a feeñal ci loolu laa gis ay borom xam-xam yu koy tere waaye nag jàll carax nga xam ne mooy dàll yu suufe yooyu moom jigéen sol ko wax dëgg yàlla dégguma kenn ku ci wax dara amul itam benn problème su fekkee ne dafa a leeralaat itam borom laaj ba noppee mi ngi déglu bu ko neexee buñ noppee mën ko leeral ci itam laaj la bu xaw a gudd détaillé na ko lool waaye li koy gàttal daal mooy imaam a ngi nii da doon julli bi mu ñëwee ba ci ñetteelu rakkaa bi mu jàpp ne mi ngi ci rakkaa bu mujj bi kon toog na di toog tooginu taaye woo xam ne daal xam nañ ne moom mi taaye ji yàgg na wala toog na toogin woo xam xam nañ ne dafa bëgg a sëlmal wala sëlmal na sax mbooloo mi eh, ñu ñi julli ci gannaawam mu ne ko ci rakka bu mujj bi da nga nekk nee na mu daal leen di geesu ne kon na am keneen ku continuer julli daal di génn dem nee na keneen daal di ñëw bi mu agsee moom dafa tàmbaliwaat julli question bi nag mooy ndax noonu imaam ji def noonu la ak ki ko wuutu si ndax ni mu def noonu la euh, déedéet imaam ji ni mu def ni def du noonu bi mu sëlmalee ci ñetteelu rakka ñi tàbbaal ko dafa war a jóg rek indi beneen rakka euh, su ko defee su jot su jotu sax bu sëlmalee juum na ci kaw ne euh, dafa jóg taxaw di biral kooku waruloon a biral xam na ne ku nekk ci ñeenteelu rakka moom mënoo biral mënoo jàng ca kaw kon jàng gi ci kaw njuumte la biñ biñ koy sàbbalee ci loolu it mu continuer di jàng loolu waru ko woon a def bi nit ki waxee moom ndax loolu wax jooju dagan na mooy imaam boo ko sàbbalee te gis delluwut gannaaw sañ nga lam def nga wax ko ko ndax mu xam ko kon wax gam ko wax yàqul julli nga wax gu dagan la foofa nag biñ ko ko waxee lam waroon a def mooy jàng njàngum yaloom bu jeexalee mu daal di ju euh, àggale julli gi ca noona bu noppee si jóot waaye ginnaaw defut fa imaam toll woon rek loola la war a àggale moom ginnaaw comprendre na xam na li sikk ci julli gi da ko waroon a defar moom ba noppi sujud waaye nag tàmbaliwaat julli gi ca commencement ba julliwaatal nit ña ala kulli xaal lam def mënoon naa am neneen nu ko gën a gàtt noo xam ne sharia nangu na ko maanaam guddal na julli ko yàggal na fa nit ña rek lañ cay wax waaye teewut julliwaat julli gu baax nag julli gu baax la mënoon naa bañ a def noona waaye ba koy defaree Suède surtout xam koy defare te it bu imaam de julli ña muy teg ci gannaawam itam ñu fis des ñu doon ñoo xam ne ñu mën a jiiti julli lañ ba su dara xewee ba imaam wutal leen ñu xam ni ñuy def loolu it baax na ci loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan julli day wax li yalini minkum ulul ahlaami wan nuha ñiy sës ci man ci yéen na doon ñi nga xam ne ñoo ci ëpp xam-xam te ëpp ci xel maanaam gën a xam daal lu ñuy def su ko defee ñooñu ñooy doon ñi sës ci imaam ji rek pour su dara xewee rek ñu daal di mën a wutu imaam daal di mën a mel ne doon julli loolu itam ñu bàyyi ko xel bu baax a baax insha allah question bi ci tegu kii def ne daal day laaj melokaani jabar ju baax ci ki nga xam ne dafa bëgg a takk sox muy laaj it ndax su fekkee xam nan menn mbokk moo xam ne mbokk mu jigéen la moo xam ne manees na ko booleeg moom xay na daal kon kuy wut soxna la alhamdulilah melokaani soxna su baax moom euh, mooy ab jullit nag bu baax rek jullit bépp boo xam ne bu baax la daal te nangoo sukkandiku nag ci sunna góorgóorlu ci diineem kooka mooy tomb bu jëkk yeneen tomb yi ca des yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tudd na ko maanaam maanaam su yooyee yépp baax na mooy mu doon boroomu askan doon borom alal nekk boroomu taar loolu su ma nee am lu baax la waaye su loola mul woon a am waaye lenn lu nekk mu am ca tuuti it ba noppi nag doon borom diine loola moom mooy tànneex bu mag ba moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne fasbar bi daati diini ba diine kon kooka mooy jabar joo xam ne ju baax la soxna su baax kon mooy mooy soo xam ne noonu la mel soo xam ne am na diine amaa nag ndax am na kuñ ko mën a boolee lam déet naanaam boole moom du du doxe noonu dëgg la am na ay jéego yu ñuy def ci mbokk yu ñëw di góor ak yu jigéen kenn ku ci nekk di wax sa xemmemteef ci boo gisee ku baax ku mel noona nañ fexe ba seen diggante mën a am waaye loola aw doxin la am woo xam ne dafa am programme nit ki ci boppam ku góor ga dañuy xam mooy kan xam dara ci ay jaar-jaaram ak ca lam nekk ak këm bëgg nam ko bëggee loolu lépp doon loo xam ne secret lay doon suñ diggante ak moom bu dee ku jigéen ko it noona lay demee suñ xoolee ci ña fa i tur nekk ak seen i melokaan ba gis nañ na war nañoo ànd ñu daal leen di eh, jéem a dox ci ay contact yi war a mën a dox seen yàlla mën a boole ñaari jullit yu baax ndax eh, ay jullit yu baax mën a jóge ci seen biir waaye nag ci kaw rek nit ñi daal di ne nga boole maag mbokk mu baax rek te yow kenn xamul yow yaay kan mbir ma du doxe noonu am na yeneen formalité yoo xam ne yu laaj la eh, dëgg la jamono yi nekk am ay mbokk yu jigéen yu fi dénkaane seen bopp am na it ay mbokk yu góor yu fi dénkaane seen bopp yàlla dogoon na ay séy sax sosoon nag ci loolu yoo xam ne borom bi tabaraka gis ko xam la mu bëgg xam nu mu xalaate xam ku muy wut nu mu bëgg mu mel na lan la bëgg ci moom lan mooy ay condition yooyu yëpp ñu jël ko bu buñ gisee nag koo xam ne d'accord na ci condition yi mel noonu ñu wax ko nag ne ko ah yow ki nga doon seet am na koñ ji euh, su ko defee jéem a dox ci seen diggante ngir ak ko am seen diggante kon mbir ma noonu lay doxee ci lim doon laaj ci soxna soo xam ne soxna su baax la am na ay benn silsila muy ay xutba yu yoo xam ne yëpp mi ngi jëmoon ci wàllu sëy melokaanu jigéen jaak melokaanu ku góor kaak kenn ku ne say droit yi ngay yoral ci sa morom taxaw mesures kenn ku nekk yooyu leeral nañ ko ca xutba yooyu bu fekkee ne mën na koo am wala yàlla dogal mu nekk ci sët mu mën caa dugg pour jariñu ca insha laaj bi ci tegu dafa laaj mu ne ndax dagan na ñii ñaan ci barkeb ñaan ci barkeb diw ñu xamal ko ne ko déedéet li tax daganul ba ca jiitu mooy saxut ci yonente bi wa sallam saxul ci kenn ci saxaaba yi saxaaba yi xam nañ ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ëpp ñëpp barke moo gën ñëpp moom lañ a a wa sallam kon barkeb diw ak darajey diw maa ngi ciy ñaan loolu sharia nanguwu ko saxul ci sharia te ñaan dafa doon mbir moo xam ne bu jullit bi xasee yëkkati loxoom rek jëm ci boroomam diggante booba digganteem ak yàlla rek la war a doon lépp lu aji ci meneen mbindeef ak mbindeef ma lu mu baax baax ak lu mu bari bari daraja ak lu mu bari bari xorma ma warta dugg ci diggante boobu sun borom tabaraka wa taala rek lay ñaan moo tax wa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu a daai ida dafa mel ne charte la ndax borom bi daf ne jaam ñi buñ ma la laajee fu ma leen toll nee leen jege naa leen lool fekkee ne ñaan nañ ma danaa leen may waaye nag su fekkee man lañ ñaan la wax kon jullit bi day daw suy ñaan yàlla tuddaale ca leneen ndax mu bañ a nuroog ñaan keneen ku dul yàlla borom bi tabaraka wa taala buy maye du maye ci barkeb kenn day maye rek ak mayeem ku ko barkeb diw wala darajey diw wala kenn waxoon naa la fi ci fatawa bu weesu woon ne loolu ci boppam dafay doon ak doyadal ndax nit ñi képp sax boo gisoon njiitu koo jox say projet wala say yënga bëgg ci moom wax koo wax a wax ba àggal ne ko lii ma lay ñaan nag ci barkeb sa ministre wala ci dara ci laa la koy ñaan boo àggalee boo tuut la ngay ñaan moom doo ko am te mën nga faa jële ab sànja maanaam mer moo xam ne dana la ko mere ndax lu tax nga ñëw ba ci kanam ba àggal euh, li nga koy ñaan mënoo ko ko ñaan direct xanaa di ci boole keneen ku dul moom mel ne kooka moo lay may su boobaa loolu nag bu fekkee kooka lam amal ko si néew borom bi tabaraka wa taala moo ko ko may te it su fekkee ne dafa yaakaar dara moom ci suñu borom tabaraka la ko yaakaar su fekkee ne ku baax la kon bul tooñ kooka bul tooñ sa borom tàllalal say loxo rek nga sant sa borom tabaraka wa taala mu may la wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum borom bi nee na ñaan leen ma ma nangul leen loolu daal moom la sharia nangu moo dëppoog sharia moo dëppoog lu dul loolu nag sharia bi ci tegu ma sëlmalee meneen mbooloo dugg di julli mu teg ñoom julli def ko naafila déedéet nag loola du dagan ndax ginnaaw yow julli nga takkusaan ba noppi mënatoo naafila naafila tànneef naafila tànneef mooy yaa jekki ba mu yàgg rek nga coobarewu di ko def moo tax su fekku ne dafa am ku dugg jàkka wala yu mel noonu kooku mën naa julli julli naafila gannaaw takkusaan ndax dafa am condition boo xam ne moo tax waaye nag mbooloo mu dugg rek di julli ñoom seen julli takkusaan loola du tax nga mën a naafila nag ndax naafila gannaaw takkusaan dañ la koo tere te loolu doonut tool bopp boo xam ne bopp bi mën a tax liñ tere woon dagan wallahu taala alam ki koo xam ne da daan woo woor ayib mu di ko woor nag par mu dajeeg ajjuma nekk ca mu ne bi mu wooree ba agsi ca ajjuma ja nag mu am ngànt wóorul samedi ja mu ne ndax woor gii mu woor ajjuma te wóorul bis ba ca tegu ndax loolu day dugg ci liñ tereem di alhamdulilah wér na ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tere na woor ajjuma ber ko tànn rek ajjuma woor ko woor lu dul da ko jiitu wala ba ca tegu noonu la ko waxee tere na it tànn bisub samedi woor ko moom dong kon ñaar yooyu bu ci nekk tere na su fekkee da leen a boole woor nag ci naafi la kooka terewuñ ko waxee ne lu dul su wooree ajjuma bis ba ko jiitu wala ba ca tegu kenn ku ne xam na ne bis ba tegu ci ajjuma mooy sam kon nit ki sañ naa jekki ba mu yàgg mu tànn ajjuma ak samedi woor leen ñoom ñaar ci kooru ngat loolu dara nekku ci insha ba ca des nag mooy ki nga xam ne moom dafa am yum baaxoo woon di ko woor kooka mbiram moo gën a dëgër yonente bi sallallahu alayhi wa illa rajulun kaana yasuumu sawman lu dul koo xam ne dafa am kooram gum doon woor kon yow foofa ngay dugg yow mi doon woor ayaamul bi bi ñetti fan yi nga xam ne ñoo ne ci digg weer bi fan ak ñett fukk ak ñeent fukk ak juróom far ajjuma nekk ca biir ak samedi nga woor ajjuma ja samedi ja nga am ngant kooka lor nekku ci ndax ginnaaw ngant dugg si na rek bàkkaar moom dal nay wàcc te rawatina su fekkee ne nag dafa wooroon alxames ja ak ajjuma ja kon foofa ngant la sax amatu fa benn sens ndax woor na bis ba jiitu woon ajjuma ja kon bàkkaar amatul foofa tere bis ba jiitu ajjuma kon ak ajjuma la koy dese rek mooy bis ba mu waroon a ñetteele far mu dajee ngantam loolu kon su nganti la dañeen day woor bisub ñetteel ba rek wutale ko ko insha allahu kooram daal di aw yoon kii nee na dafa dégg ñu ne doomi njaaloo du dugg ajjana donte sax dafa baax donte daa doon nit ku baax loolu wérul wérul dëppoowut ak qawaidi sharia maanaam régal yi nga xam ne ci la borom bi teg shariatul islam dëppoowut ak loolu dëppoowul it ak maandu teg sunu borom tabaraka wa taala ndax borom bi bokk na ci ak maandu teem mooy du mbugal ku deful dara te duggul àjjana ku nekk xam nga ne sawara rek nga a jëm euh, nga mën a am mbugal te ki deful dara doon ko baax su fekkoon ne borom bi tabaraka wa taala dana ko mbugal kon ko ku wax ne tooñ la juumoo kon borom bi tabaraka la borom bi tabaraka wa taala wax nee na yàlla du tooñ jaamam ñi léppam rek ci maadu te la ko teg kon doomi njaaloo deful dara ña def dara ñooy ay waajuram ñoo am bàkkaarub njaaloo ñoom la tuub war ñoom la dellu ci siraatul war ci bàkkaar bu ñaaw boobu yi nga xam ne def nañ ko ba jëmm jooji juddoo ci amma moom mi juddu nag nekkul responsable ci fam juddoo moo tax la ñuy xool moom mooy jëfam bàkkaar moom du jóge ci kii di dem ca kële te fekk deful dara moo tax borom bi ne wala taziru waziratun wizra uxra maanaam loolu mooy bàkkaar du wàlle bàkkaar ki ko am rek moo ko am waaye du tuxoo ci moom di dem ci keneen loolu faaw ñu xàmme ko bu baax a baax bu fekkoon ne bàkkaar day wàlle kon mënees a wax lu mel noonu waaye nag bàkkaar du wàlle waajur yi ñoo am bàkkaar waaye doom ji moom deful dara moo tax juddu bi nag doonut loo xam ne lu am importance la ci nit nit ki la am solo ci moom mooy lam jëf wa an laysa lil insani illa ma saa nit du am lenn lu dul lam jëf loolu moo tax euh, kullu nafsin bima kasabat rahina bakkan bu nekk lam jëf ci jëf loola la la nekk responsable ca loola waaye nag li nga xam ne defoo ko moom kooku mënoo caa nekk responsable mukk loolu dëppawul aqwaidu sharia te it amul dalil wala luy nuróog dalil sax loo xam ne lu sax la jóge ci alquran wala mu jóge ci sunna loo xam ne day am benn bàkkaar boo xam ne dañ koy teg doomu njaalo wala mu doon ko suufe ci société bi ñuy wax naan du mën a jiite julli wala aadama yooyu ay wax la yoo xam ne doomu aadama yi ñoo koy wax rek waaye dara wéru ci njaaloo nag lu bon a bon la loo xam ne ña ko def moo xam doom juddoo na ci wala juddoowu ca def nañ jëf di bon yoo xam ne ci bàkkaar yu mag yi la bokk ci muubiqaat yi sax la bokk kon kooka muy bàkkaar yi gën a diis kon nit ka daf ko war a tuub war lu jéggalu borom bi tabaraka wa taala jéggal leen kii daf ne daal waxtu julli moom ba li ñu nekk te Italie nee xam nañ fa muy tàmbale ak fa muy yem day mel ne waxtu weer moom jot na mu ne day continuer ba cinq heures vingt neuf diggante boobu na lool kon maanaam su jullik suba la ci jullik suba la ci jublu moom loolu yaatu na ba maanaam kon ñoom seen fajar ji digganteem ak fa jant bay fenke kooku soree na lool waaye ala kulli xaal ñu bàyyi mbir ma noona dane lay seen problème mooy xamuñu wan waxtu mooy wi gën ci waxtu yooyu yëpp te jàkk yi tax muy wax jàkk yi sunna la ala kulli xaal li gën ci waxtu julli mooy waxtu woo dugg rek nga dem julli loolu mooy la ca gën loolu mooy cosaan si li gën ci waxtu julli mooy fu julli jot jote nga julli mooy ci la bokk mooy bu julli jotee rek nga julli waaye nag jekki ba ci digg ba jekki ba ci mujj ba loolu lépp ay julli yu la su ko nit ki defee am na julli waaye gëgën nag mooy gi waxtu wi jot rek ñu julli lu dul nag loo xam ne dafa am exception ci loolu maanaam luñ ca settee mooy su waxtu tàngoor amee waxtu tàngoor lool am nga nekk ci waxtu julli tisbaar nga xam ne nit ñi génn jëm ca jàkk ja day ànd ak tàngoor wu metti kooku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana jëfandikoo li ba nga xam ne ja ba nga bi xaw na rëcc tàngoor a julli waxtu tisbaar loolu nag waxtu bi mu ko daan def mooy waxtu tàngooru métti wala lu mel ne julli gee waxtu wi daana dugg mu toog lu yàgg yàgg yàgg door koo julli ba saxaaba yi daan ko xaar-xaar bu yàgg ba am ci ñoo xam ne danañ dem sax bay gëmmeentoo ko jeexu ak a nelaw bu dikkee fekk ñuy xaar mu ne leen lii day amul ci kaw suuf ñenn ñu koy xaar ba waxtu wi lu dul yéen daal di julli kon ñaari waxtu yooyu daal bu ci nekk sax na ci sunna moom ne yeexal ko doonu loo xam ne lu wàññi dara la lu baax la waaye nag lu dul loolu moom la ci gën mooy su waxtu jotee na ca julli fii jigéen la nee waaye ngi ngi joo xam ne daal boroomu njaboot la waaye nag euh, it téewoowul téewoowul daal ndigali sunu boroom tabaraka wa taala maanaam daal nee na lu bari ci ay waxtoom da koy passé ci kanam euh, télévision yi seetaan ay film seetaan ay sport u caaxaan la daal am na ay xaritam yoo xam ne it toujours ya ñuy waxtaan ak moom yi ñàkkaat solo lay doon nee na loolu tax na soxnaam di ko critiquer waaye euh, critique boobu amagul benn boobu amagul benn njariñ maanaam du ko déglu ne si dafa ragal waa mel mu wàll ko ay doomam ñoom itam ñu mel noonu nee loolu naqari na soxna si ba tax na moom it yenn yi nga xam ne dafa war a dox digganteem ak jëkkëram jooju ndigal yi mu ko war a digal mu di ko ci topp nee na moom it léeg-léeg du déglu ndigalam yooyu ngir mere goo xam mere na muy laaj na yan laaye biir lañ leen di jox alhamdulilah laaye biir yi day weesuwut dénk ko kii mu ragal yàlla xam ne góor gi xas dem ba am kër am soxna am doom kooka nag doonatul gone léegi mag la jot na ci moom mu gàddu responsabilité am nag bu dëgër xam ne moom mii kenn la ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su yàqoo yàq na lu bi su yàqee ak njabootam yàqaat na lu réer yi te it musiba ma mépp ci kawam lay delsiwaat ndax moom la yàlla jox njaboot gi moom la ko sàmmaloo kon na tuub delsiwaat jaar ci siraatul mustaqim te bàyyi caaxaan yi ak pom yi te laaye biir yi ko soxnaam di laaye biir ak nit ñu baax ñi ko ko wax mu nangu ko dégg te soppi nag ay xaritam yi nga xam ne ñoo koy wommat di ko jëme ci loo xam ne ay caaxaan la ak lu baaxut xam ne jullit bokkul ak keneen ku dul jullit jullit bokkul ak koo xam ne amut programme jullit dafa am programme bu diis a diis boo xam ne moo tax amut jot amut jotu caaxaan mooy dafa bëgg a baaxal addunaam bëgg a baaxal alaxiraam moo tax fu ñu ko fekk fu nekk ñetti mbir yi war nañ ko ci fekk ci leen benn mu nekk ci di yëngu ci loo xam ne luy baaxal addunaam la te doon lu dagan wala loo xam ne luy baaxal alaxiraam la wala mu nekk di noppalu ngir bëgg a mën a jóg def leen ci yooyu kon jullit bi yett yooyu la am ci programme fii ci adduna benn muy liggéeyal alaxiraam kese wala muy liggéeyal addunaam ci lu lew te ngir bëgg a jóg defi leen ci yooyu su programme ba génnee yooyu nag na xam ne waxtoom ngi sàmm te lépp bépp benn minute boo xam ne jóge na ci waxtoom te ko ci ñett yi ma wax rek perte na loo xam ne kenn xamul fu mu koy dabewaat ci àdduna ndax li xas passé ci dundam moom du dellusiwaat ñàkk na ko te duut ca a jot ko euh, bu mu mu dëng yóbbaale digal yu baax la nag kon kooku moom it ma ngay juum ma ngay am bakkaar ci loola moom bu mu tee na def li nga xam ne moo ko war lépp boole ko di ko digal lu baax xëy ni jikko fi baax yooyu mu koy won ci su ko ko digalee lu baax mu def def ko su ko teree lu bon mu bàyyi ko ba noppi di ko laaye biir nag ak njub googu mbaax googu mu koy woon loolu mën na koo jaaj ji ba jëkkër ji soppi ndax lu bari bari nag ci ay jëkkër soppiku nañ da a bàyyi xel la bu baax a baax waaye su fekkee ne dafa fayantoog moom yaay borom kër gi kon ma itam dama la dëngee kon kër ga lépp day ànd dëng far lam doon dawal doom yi mooy doom yi mën nañoo roy ci seen baay roy seen yaay ak dëngate te loolu la doon daw kon na def li ko su ko digalee nag loo xam ne lu baaxut la loola moom day waxtaan ak xaritam ci problème yi nga xam ne mi ngi xew biir famille am di ci waxtaan ak moom waaye ne waxtaan woowu lam ci jublu it nag mooy jële ci moom ay conseil ay laaye biir yoo xam ne dana tax xëy na mu xam nu muy saafara problème yooyu nekk ci biir njaboot nekk ci biir njaboot muy laaj nag ndax loolu day dugg ci feeñal secret yi dox diggante yi doon jógee góor maanaam diggante jabar ak jëkkër ndax loolu day dugg ci feeñal seeni secret alhamdulilah la shakka ne borom bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na góor maanaam maanaam ñaar yooyu dencante seen secret yi biir kër ya dox seen diggante nag te spécial lool kenn ci ñoom di génn di ko waxtaane loolu nag buñ koy wax la tax mu jóg dëgg-dëgg mooy lay dox seen diggante ñoom ñaar ci wàllu sëy daganul kenn ci ñoom ñaar muy wax benn baat wala ab junj boo xam ne bu jëm ci ñoom la dafa xaraam mu des nag yeneen i yoo xam ne secret yi biir kër la mooy doxinu kër gi doxinu kër gi ak la fay xew loola it la cay cosaan mooy ko denc ña ngi koy jox mën nañoo doon ñoo xam ne ay noon lañ te say noonu wala ñu soppi ko yi ëllëg ñooñu it dees leen koy dees koy denc lu dul nag lu mel ni lii mu juñ nit koo xam ne xam nañ ci moom ragal yàlla xam nañ ci moom jub xam ci moom baax xam ci moom xam-xam xam ci moom xel mu jub yooyu su dajee ci koo xam ne ak xaritam la bu jigéen boo xam ne wóolu boo xam ne wóolu na koo wax ak moom ci ay jafe-jafe biir këram kooka moom wuti ak wàll ci moom muy wax ko lay xew ci këram ne ko damaa bëgg ku ma ci jàppale ku ma ci xelal loola moom dimmal la day doon loo xam ne sax dafa jaadu fa war a nekk kooku moom lu mat a xel la sharia du loolu lu baax la xanaa incha allah kon mbokk yi dafa mel ne loolu mooy laaj bu mujj bi incha allah su boole mbokk yi tawfiq ñaan su borom tabaraka wa taala mu boole ñu ko euh, incha allah bañ dajewaat ci jotaayu fatawa bi di ñëw بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الله على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بصلاة بوضوئي بركوعي بخشوعي دوما ألقى بني الإسلام على خمس خمسة أركان ستين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا